wa ala alihi wa asxaabihi altayibin altahirin algurri almayamin wa radiya allahu an cheikhina tijani wa an jamici xulafaihi wa ahli tariqatih bokki jullit yi gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak i saxaabaam dellu si neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndao di leen ko defal ànd ak seen xarit Ahmed Samb tabarakallahu ñu ngi ndokkeel al ustaaz Alioune Sall ci tafsiram bi nga xam ne tey la am ñaari at ngi ñaan yàlla yal na ko ci yàlla jàppale defal ko ci tawfiq te barkeel ko mu mel ni mbokk yi ñu ngi woon ci histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaa ñu ngi woon ci siira génnoon nañ ci xare badar ak li ci xewoon gis nañu ne yonent bi ñi mu jàppoon ñu di ay jar-jar mu di ay jaam yu mu jàppoon ci xare bi ñii rey na leen ñii jëflante na ak ñoom ci njëkk ñii jël na ay xale jox leen pour ñu jàngal leen ndax loolu nekk seen njot ñii daf leen laaj alal mu mel ni gannaaw nag mbir moomu naqar bu rëy am na ci waa Quraysh mu di yéeféer yeeg jóge woon màkk ba loolu dana waral xare bu rëy ca kanam ñu tuddee ko xare Uhud diggante bi nag diggante Badar ak Uhud am na xare xare yu ndaw ndawaan yu nga xam ne am na ci lu deme niki ki ba ni qaynuqaa xaswatu mu ngi ame ci atum ñaareel ma ci gàddaay gi di tolloog 624 miladiya ci at mi yonent yàlla isa judd qaynuqaa turu giir la ci yahud yi yi dëkke woon a war amoon nanu marché bu nga xam ne dañ leen ko tudde woon mu di suuqu bani Qaynuqa ñoom nag ay yahud yu nga xam ne allié leen woon ci Xadraj ak nee na itam allié leen woon ci Ubadatu bnu Samit ak Eh, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul maanaam ñoom yahud ñooñu ay tëgg woon yu nga xam ne dañ daan defar ay jaaseeg tabarkalla ay fettaki arm loolu moo doon seen métier ñu ngi dëkke woon Medina bokkoon neen itam ci ñi gën a riche ci ñi dëkke woon Medina mu mel ni bi yonent bi jógee Badar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nanu dajale yahudu bani Qaynuqa mu waxtaan ak ñoom lii la leen wax moom yonent bi bi ñu dajee daf leen wax ne yaa ma'shar al yahud ixdaru min allahi azza wa jal mithla ma nadala bi quraysh min an niqma wa aslimu fa innakum qad ariftum anni nabiyun mursal tajiduuna dalika fi kitaabikum wa fi ahdillahi ilaykum mu ne yéen yahuutu bani xaynuqaa moytu ndiku leen yàlla ndax kat musiba bi dal waa Quraysh lay bañ mu dal leen yéen ñooñ téere ngeen am ngeen ay yonent seeni yonent li mu leen wax moo di ne su ma ñëwee na ngeen ma gëm ndax maa di maa nekkoon annabiyul muntadar yonent bi ñëpp doon xaar yéen nag yéen a ma gën a xam ndax jàng ngeen ma ci seeni téere ngalawaay bu leen topp àdduna ba wuuteek sama ndigal bu ngeen ko defee li dal Quraysh ca Badar dana leen dal bis bi mu waxee ba daaneel kàddoom ñu ne ko yaa Muhammad innaka tara annaka qawmik ñu ne ko yow Muhammad yow daal danga foog ne ñun dañoo ñàkk fayda ñàkk njariñ comme sa sa mbokk yi dëkke màkk gañe gi leen gañe tax na nga foog ne boo xeexeek ñun dag ñu gañe ne ko bul waru ndax ñi nga dajeel xamuñu xeex mënuñoo xeex occasion bi nga am ci ñoom ba gañe leen loolu bum la tromper maa ngi lay yëgal ni saa soo takkoo pour na ma xarek ñun su boobaa danga nga dajeek jàmbaar yu nga xam ne daneen la nërmeel kon nag ñu ngi lay yëgal ne ñu ngi takku di la xaar foo ñu woo rek ñu fekk la fa kon yahut yooyu ñoom dëkk nañu yonent bi fas yéene xeex ak moom waayante fas yéene wuñ koo gëm mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi jàpp na njàmburam wante mu ngi xaar rek ndigalu yàlla ci ñoom wante lu jiitu yonent bi di joteeg ñoom ci dara am na benn xew-xew ndax dafa am benn jigéen bu ñëwoon ci marché bi ci marché Bani Qaynuqa bi mu ñëwee mu fay dox benn mbir benn yitteem fi mu toog nekke benn yahud gis na ko mu def xijaab maanaam muuru ni jigéenu jullit ñi di muuroo ñu koy sabote ci muuru bi mu muuru wante nag la gën a yéeme ci mbir ma mooy bu ñu yeboon ci sabot sabote bi rekk mu baax wante robb bi ndaw si soloon dafa nekk robb bu gudd te rëy ñaari arab yi seen robb yi ñuy sol dafay rëy te yaatu rob bi ni mu toogee mu lalu ci suuf benn yahut doxe ko gannaaw daal di jël catu rob bi yëkkati ko ba mu tollook baat ba mu pinge ko ca nga xamante ni bu ndaw si jógee awraam li ci féete gannaaw yépp dafay feeñ ndaw si daldi jóg awraam feeñ te yëgu ko muy dox rek fu mu jaar rek nit ñi xax day daanu ndeke am na benn jullit bu gis juif bi bi muy def loolu ndaw si bi mu sentire ne ndeke awraam a ngi feeñ mu yuuxu jullit boobu nag moo tëb fekk ka jëloon ping ba pinge rob bu ndaw si jullit ba rey ko lu tax ndax kat ay yéeféer ñoo bëgg a gàcceel lislaam looloo tax waa ji daldi di jóg rey yahut boobule ndax yéeféer la rey na ko ndax dimbale na itam ku ñu tooñ bi mu ko reyee nag yahud yi ñoom itam daal di mer ndax marché boobu marché yahud yi la woon yahud yi daal di koy attaqué bi ñu attaqué waa ji nag daal di koy sëxatoo rey ko loolu nag metti jullit ñi bi mu leen mettee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk na xare encerclé na quartier bi nga xam ne moom la yahud yooyu dëkke woon pour na ma xeex ak ñoom kenn génn ba ñu demee ba jaaxle am na ku ñuy wax Abdallah ibnu Ubay moom mi nga xam ne xarit la woon ci ñoom ndax moo allié woon ñoom ci jaahiliya moo ñëw nag ne yonent bi dama bëgg nga bàyyi leen ndax kat soo daleen ci seen kaw du baax topp yonent bi di ko lakkal ba yonent bi mujj ne ko demal nga ànd ak ñoom wante yàlla bu yàlla barkeel seenuk ànd ci la digal nag Ubaadatu bnu Saamit ne ko nanu génn Medina ci lañ leen génne Medina nag nangu seen alal yi bàyyi leen ñu dem ñoom nag bu ñu ma dina ñu ngi dem ardu Sham mujj Syrie loolu itam ci diggante Badar la ak uh, Uhud mu mel nii Umm Kalsum mi nga xam ne yonent bi moo ko jur gannaaw bi Roqaya faatoo wax ne ne ci leen ko may Ousmane Ibn Affan lu tax ñu ni ndax bi tabbat yada abi lahabin yàlla xas ci abu mi nga xamante ni moom bàyyi tëx la ci yonent bi ndax papam ju ndaw la abu lahab dafa mar ndax booba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jël ñaari doomam mu di Roqaya ak Umu Kalsum mu may leen ñaari doomi abi lahab pour rek jokke ko mbokk gi ndax abu lahab bàyyi tëx la ci moom papa ju ndaw la ci moom kenn ki mu may ko ba keneen ki ci des mu may ko ba bi nga xamante ni nag tabbat daa wàcc na xas yonent bi eh, xas eh, abu jahlin yàlla xas ko ci moom abu lahab dafa mer daal di wax ñaari doomam yooyu ne leen ñaari doomi muhammad yi ngeen takk maa ngi leen di yëgal ni su ngeen leen fasewul danaa dog ak yéen àdduna ak àllaaxira seen yaay itam ummu jamil wax loolu xale ya daal di leen di fase lu jiitu ñuy joteek ñoom ci dara kon nañ leen tam takke woon ñu di jànq noonu leen leen fase ba ñu leen fase nag ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël may ko Usmaan bi mu faatoo ci e, gannaaw xare Badar bi mu faatoo ba Seydina Usmaan denc ko ci leen ko mayaat nag ci leen ko may Umu Kalsum ginnaaw si gi yonent bi sallallahu alayhi ci weeru Shaaban ci at mi ci la takk itam Xafsa Xafsa nag soxnaam la woon yonent bi sallallahu alayhi mu ngi ko takk ci weeru Soobaan Xafsa moomu Omar ibnul Xataab moo ko jur. amoon na jëkkër ndax ku ñuy wax xuna euh, xunay subnu xadaafa moo ko takkoon wax ne ne bi mu faatoo la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denc wante Omar ibnul Xataab lu jiitu yonent bi di ko denc gaaraloon na Abu Bakar pour mu denc ko ne ko daal sama doom ji Xafsa dama bëgg daal su fekkente ne soxla nga ko daal ma may la ko soxna wante Abubakri ni Siddiq wuyuwu ko ci loolu maanaam nanguwul moo gaaral ko Sidna Ousmane Sidna Ousmane itam nanguwul Sidna Omar daa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa ko koy wax yonent bi ne ko inna allaha qad zawaja Ousmana xayran min ibnatik wa zawaja ibnatak xayran min Ousmane mu ne ko Ousmane Ibn Affan du mën a takk Xafsa ndax Umu Kalsoom mi ma ko may moo gën Xafsa kon nag Ousmane am na ku gën sa doom wante maa ngi lay yëgal ne itam sa doom dana am jëkkër ju gën Ousmane su fekkee Ousmane am na jabar ju gën sa doom sa doom Xafsa dana am jëkkër ju gën Ousmane mu ne ko kon. tabaarakallaahu danaa ko denc mu di sama soxna moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa moo mujj denc Xafsa moo tax ñu ni gannaaw bi mu dencee Aïcha ba noppi nag la denc Xafsa mi kon Aïcha la njëkk a takk sokkee teg Xafsa euh, ñu ni am na benn juif bu ñuy wax Kaab ibnul Ashraf juif bu bon la woon mu ngi dëkke woon Medina bi nga xamante ni jullit ñi gañe neen ci xare Badar ba yonent bi yebal Zayd ibnu Haarisa ne ko demal ci Medina nga wax leen ne gañe nañu te jàpp nañu ci ñoom ay kilifa yu nga xamante ni dañ leen jàpp ñu di ay jar-jar bi mu ñëwee wax xabaar bi Kaab ibnu Ashraf daf ko weddi ne ko li nga wax dëgg yonent bi mbooloo mënul nekk ñetti téeméer ak fukk ñett te ay ngànnaayam bariwul ay fasam bariwul te ay jàmbaaram bariwul waa Makka nama leen xamee ci njàmbaar ak alal ak arme yu doy sëkk li nga wax daal mënuma ko gëm gannaaw si gi nag bi mu amee lu ko leer naññ ci ne waa Màkka gañe nañu leen rey nañu Utba rey na nañu Umayya rey nañu Aba Jahl ak yeneeni jàmbaar jàpp nañu Abbas jàpp nañu yeneeni jàmbaar bi mu demee ba am ca lu ko leer dafa mer moom Kaab ibnul Ashraf bi mu meree nag comme poète la woon woykat la woon mu commencé way di bind ay taalif di xas yonent bi di ko def di ko def ba jikki yamul ci loolu mu war fasam dem makk ba mu demee màkk itam commencé influencer Abu Sufyaan ak kilifay màkk yi ne leen bu leen ñàkk fayda xeex leen ak moom pexe rek la leen gañee nangam ak nangam di wax ay waxi naa fexam dellu siwaat Medina continuer na mu daan loree yonent bi ba jikki yonent bi ne waaw ana kan moo ma mën a dimbali ci ku bon ki nga xam ne mu may xas ci làmmiñam te defuma ko dara mu am ay volonté yu jóg ku demee ni kii Muhammad ibnu Maslama moo jóg am ànd ak ku ñuy wax Abana Ila Abana Ila mii moom ak Kaab nu Ashraf ñoo nàmpandoo ak ku ñuy wax Ubaad ibnu Bishr ak Xaaris nu Aws ñoom ñoo ko fexe ba génnee ko këram guddi daal di koy rey rey googu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan na ci lool ndax ki ñu rey def di noon bu rëy ci lislaam bi di gàllankoor bu rëy itam ci lislaam bi mu mel ni amoon na benn noon bu rëy bu ñuy wax Abu Lahab ba léegi déggaguleen turam ci xare Badar ndax kat moom demul woon dafa am ku mu fay xaalis kookoo ko demal Badar moom demul woon dafa wute xare ba mu nga woon mag wante ndax mucc na déedéet muccul ndax gannaaw xare Badar ñetti fan lañ ca teg moom Abu Lahab ci la feebar feebar bu bon feebar boobu moo ko rey kon itam la rey Abu Jahli na ko Utba ak yéeféer yu bon ya ca Badar jàngoro jooju ñëw na ba fekk si abu lahab ci màkka donte demul ci xare ba sax mu rey ko li yàlla di wax ne bu leen daw dee ndax kat dee war na fasam wu gaaw ba lu ngeen daw daw dana leen dab rey leen kon nag jaruta daw dem ci xare ba ak toog ci kër gaa yem ki war a dee moom day day dee mënul ñàkk moo tax abul abu lahab da doon ndaw deeg waaye fekk si na ko ba ci biir këram nee na xare bii di xari uxud li ko waral moo di waa Quraysh li leen dal ci Badar dafa metti ñu ni loolu taxoon na ñu ne seen njëgg ma jóge woon Saam te yonent bi karoon ko pour nangu njëgg ma te yonent bi doon kar njëgg ma te kar njëgg ma indi xare Badar njëgg moomu ba Abu Sufyaan rëccee ba dem mag jotuñu ko jaay ndax alal ja ca nekkoon ñi ko moom capitaliste ya ñoom ñooy ñi takk xare bi pour war a xare ji Badar daanaka ñoom ñëpp nag ñu nga yem waaw Abbas amoon na ca xaalis amoon na ca lu bari Abu Jahlin amoon na ca lu bari Umayya amoon na ca lu bari Utba amoon na ca lu bari waaye ñoom ñëpp dégg nga maam Abbas daal moom moo ci mucc te moom jàppoon nañu ko prisonnier mu jigéen nag dañu ko bàyyi mu mel ni dañu jëloon nag marchandise boobu bàyyi ko Makka wante jotuñu ko jaay lañ ca xalaat moo di ne comme marchandise baa ngi fi. dañu ko def xaalis su ko defee jënde ko arme pour préparer ko beneen xare pour mën a dal ci kaw yonent bi xare boobu ñu préparer nag xaalis boobu xaalis bu takk boobu xare biñ ko préparer moo di gazwatu Uhud moo tax yéefir yi nag daal di takku Abu Sufyaan daal di jóg nag dugg ci àll bi da ko dëkk mu taxaw fa woo giir yi fay leen alal pour nanu ñëw jàppale ko ci xare bi nga xamante ni sumb na ko mu di xare Uhud moo tax wut nanu ñu nga xamante ni seen làmmiñ ñëw na ndax arab làmmiñam dafa ñëw bu la xasee rek dootoo bëggati ci àdduna bi dara ñu wut ay waykat yu ñaaw làmmiñ ndax am na benn woykat bu ñuy wax Kaab ibnu Zuhayr influencé woon nañ ko ba mu xas yonent bi wax ci moom wax yu ñaaw ba wax yu ëpp ba yonent bi ne ku ko jàpp na ko rey Kaabu moomu moo tourné gannaaw ba ko yàlla baaxee mu taggaat yonent bi ci xasida bu ñuy wax baanat suaadu fa qalbil yawma matbuul ba yonent bi summi mantoom jox ko kon nga xam ne arab fonkoon na way ndax merloo nen ci yonent bi ba mu wax ne nanu rey ñu delluwaat kontaanloo ko ci ba mu jéggale ba dindi mantoom joxe moo tax waykat yi ñoom itam amoon nañu wàccuwaay bu rëy ci xare yi ndax daan nañu xas te seen xas yooyu da daan am lu mu daan def nee na Abbas mi nga xamante ni bàyyi tax la ci yonent bi gaa yi wax nañ ko ne ko nag fokk nga jóg ànd ci xeex bi ànd ci xare bi mu ne déedéet xare bi moom duma ci mën a bokk man daal badar doy na ma sëkk ndax la ma daj ci badar wax dëgg yàlla e dem nañ ba jàpp ma am naa ci gàcce goo xamante ni daal jógaat di duggaat ci beneen xare daal kooku duma ko def wante am na ci benn jigéen ju ñuy wax hind hind bintu Utba moom daanaka ci ñi gën a taal xare bi ci la bokk ndax moo doon soxna Abu Sufyaan moom fexe na ba entraîné benn jaam bu ñuy wax wax si ne ko kenn rek laa bëgg nga reyal ma ko te soo ko reyee danaa la fay xaalis bu bari ki nga xamante ni ndaw si nga xamante ni moom moom jaam bi daf na ko soo ma reyalee Hamza wala nga reyal ma Muhammad wala nga reyal ma Ali maa ngi lay yëgal ni su boobaa loolu mooy sag ngore soo ko defee rek gore mu ne ko ndax rey na nanu sama baay te boo reyee Muhammad rek mel na ni reyatuñu sama baay boo reyee Hamza mel na ni reyatuñu sama baay boo reyee Alioune itam noonu ndax ñoom ñett ñooñu dañu bokk ci giir Quraysh di ñu cher ci Quraysh boo leen reyee rek seen daraja day tolloog sama darajay baay moo taxoon nag jaam boobu moom itam pour mën a jot boppam moom itam mu entraîné préparé boppam bu baax ndax xam na ne itam ñi muy jàmmaar lool ñi mu nar a jàmmaar lool pour gore ay jàmbaar lañu te moo di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Hamza ak Ali radiyallahu anhum ajmain Abu Sufyan moo nekkoon généralu xare boobu ñoom àggoon neen ci ñetti junni àggoon nañ ci ñetti junni juróom ñaari téeméer ya yëpp am nañu ay mbubbi koŋ am na am nañu ar bu mat sëkk am na nu itam ñaat téeméeri gawar ñoo xamante ni ñu gawar fas ànd nañoo ci jigéen itam lu tolloog fukki jigéen ak juróom ña ak ñaar jigéen ña nag ñu nga yoroon ndënd ya daan tëgg yore woon itam gat e, xalam ya doon xalam dégg nga am na ci ñu nga xam ne ñu ngay fecc ñii ñu ngay servir sàngara ya dégg nga maam jigéen ñi nga xamante ni tabaarakallaahu ay fecckat leen ak i waykat ñu ngay fecc di way lu tax pour encourager yéeféer yi ci xare bi nga xamante ni moo di xare Uhud am na ci jigéen ñi ñu nga xam ne ñu ngay jooy ndax dañ ne sa nisa xabailu cheytaan nee neen jigéen ñi ñuy buumu seytaane seytaane su bëggee dugg aw nit ca jigéen ña la koy jaare am na ci jigéen ñuy jooy lu tax nee na ñu ngay yuuxu di jàpp ci seen bopp yi naan wëy suñu jàmbaar ya dee woon ca badar ana yan góor ñoo mën a taxaw pour fayul ñu ngañaay gi ñu gañe ca badar yuuxu yooyu ak jooy yooyu moo yëngal na xolu yéeféer ya ñoom itam ñu taxaw taxawaay bu mat sëkk pour jàmmaarloog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fayu defet bi ñu amoon ci badar nee na bi ñuy génn màkk ñu ngi génn ci weeru shawaal bi mu amee juróomi fan abbas mi nga xamante ni moo di bàyyi tëx ci yonent bi sallallahu alayhi te ñu jàppoon ko ci xare badar te mu lànk ne dootul dem benn xare ndax du dem ci xare Uhud Abbas bi mu yëgee ne yéefir yi takku nañu ci la bind nag benn lettre yonent bi sallallahu alayhi lu mu def ca lettre ba daf ko wan ne ko Quraysh wut nañu ndimbal ci dëkk yi leen wër ak giir yi ba am nañu mbooloo mu takku àgg nañu ci ñetti junniy soldaar ñoom nag li nu bëgg mooy génn ñëw ci yéen léegi nag li ma lay wax moo di ne bul génn toogal mi Medina rek buñ la fekk see nga xeex ak ñoom bi nga xamante ni yonent bi sallallahu jot na lettre bi xam nga su fekkonte ne yonent bi sallallahu alayhi du ummi yi ummi yi mooy koo xam ne ileetre la mënul bind mënul liir bi ñu ko joxee leetre bi xamul lu ci nekk dafa geestu jox ko benn saxaabi yi bu ñu wax Ubay ibnu Kaab moom moo liir leetre bi wax ko li ci nekk li tax nag yonent bi liiru ko dañ nekkaana ummi yan loolu nag xikma yàlla la ndax ñu bari tuumaal neen ko ci ne moo da daan jàng alxuraan ji waxi boppam la joo xam ne moom moo ko waxal boppam dafa am dégg ci ahlul kitaab ñu nga xam ne ñoo koy jàngal ci li ñu ko jàngal nag ci la créé alxuraan bi moo tax yàlla itam lancé ci defi ne bu fekkente ne yonent bi moom moo créé alxuraan yéen nit ñi maa ngi leen yéen arab yi ay bindkat ngeen ñu ñëw làmmiñ ngeen ñu mën a wax ngeen te jonge maa ngi leen maa ngi leen di ñaan ku mën def lu mel ni alxuraan defal su fekkente ne kenn mënu ko ci yéen wut leen dimbal ci seen i biir su ngeen ko mënul itam seet leen ñi ngeen woolu ci jinne yi ñu jàppale leen bu ngeen ko defee itam du ngeen ko mën ba mukk